changement climatique bi ak askanu que Sénégal mi nga xam ne dafay daal di yokkaat gu nekk tax na ba sunu réew mu ngi am ay jafe-jafe ci wàllum ndox moo xam ndoxuk naan wala sax ndox bi ñu jëfandikoo ci wàllum mbay ci wàllum càmm ji ak yeneen. aujourd'hui nous sommes confrontés. tey jii am na ay défis yu mag yoo xam ne moom ñuy xaar bokk na ci fexe ba jox askan wi ndox mu doy. waaye itam sàmm ci anam bu yàgg li nga xam ne moo di suñuy ressources ci wàllum ndox. durable de nos ressources hydriques. ngir saafara nag jafe-jafe yi nga xam ni kon ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllum ndox mi juriñ gi dënk lépp lu jëm ci wàllu waa gannaaw ndaje interministériel ba daal nay xamal ne ñu ngi taxawal ay projet nationaux yoo xam ne dina mobiliser ak revaloriser ndox gi nga xam ne Sénégal am na ko ci kaw suuf du eau de surface. les projets qui sont en am na ay projets yu bari yoo xam ne ñu koy doxal jamono jii bi ci njëkk mooy bu Promoren nekk fi nga xam ne moo di département bi Koungheul am na itam beneen projet boo xam ne sax daanaka yemb na muy BGA ñu boole ko ci projet bi ñu sàmm ndox ak wàllum assainissement. de l'eau et de l'assainissement. mais nombre ressource en mi nga xam ne ñu ngi koy exploité fii ci réewum Sénégal mu di lakk de Guiers mi nga xam ne capacité stockage bi toll na ci juróom-ñaari téeméeri millions yu toftal juróom fukk ci mètre cube mu ne de gannaaw demande bu bëri bi lakk de Guiers ngi jànkonteel itam. ay jafe-jafe ndax pollution. Euh, la carte d'évolution. carte évolution euh, cyanobactérie lu couleur bi di gën a foncé ñu gën a am ay cyanobactéries ci fi nga xam ne moo di lac de Guiers. du lac de Guiers. ci ndaje conseil interministériel bi nag jëwriñ gi dënk lépp jëm ci wàllug ndox mi daal xam xamle ni ñu ngaa taxawal yeneeni projet yoo xam ne dina capter ndox guy bawoo ci fleuve Sénégal ak fleuve Gambie lim ci jublu nag mu di fexe ba ñu am ndox mu doy ci wàllum mbay mi ba ci wàllum càmm gi waaye itam ndox gi ñuy soxla pour naan.